Fekke TV ak Dakar Live ak Universel Info comme li Gallo di wax mënuma ko dafa ko tàmm di leen béggee bu baax a baax a baax di amaat mbégte ak contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale nag ci wàllu làmb yaakaar naa ne gis ngeen li nga xam ne moom moo dal ki nga xam ne moom moo di Ada Fass ñaari jabar yi nga xam ne moom la takk mu indi polémique ak coow lu metti ci réew mi yematuñu foofu ñu gis waa fas génn wane seen mer wane lépp waaye ñu toog ak kenn koo xam te ni nag jegeñaale Ada Fass la yaakaar muy Zambo mu nekk nit koo xam ni yaakaar naa ne ku jege Ada la maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Maguette maa lay fay di la dalal bu baax fii si Gueule sa diggante ak Ada Fass waaw damay nuyu waa àdduna nuyu waaw sama diggante Ada moom du lenn lu dul jàmm rek Ada làmb boolewuñu man ak moom Ada dafa yàgg am nañ fu ñu jaar fu ne ci cent franc la si ay millions am na yeneen yu ne si biir xam naa bu ñu gën a sori dinañ si ñëwaat mais mais mu xëy Ada Fass takk ñaareel teelul dafa teel trop loolu du yoon Ada tey man tey su may wax si moom sax xam naa nu fi jóge Ada aaw dafa teel si moom waxuma la ak ñaareel mais loolu vie privée la dañ ko koy may mais nit ki nit am kilifa dafa baax bu gars yi dañuy ne aada amul staff am na staff de mais moom moo amul kilifa du tàggoo si muy def. Mhm. aada kenn xamul fu muy fanaan. Mhm. kenn xamul fu muy ne. Mhm. buy dem boîte kenn du yëg. buy takk jabar ñun kenn yëgu ko man aawam yëgu ma ko ñaareelam yëgu ma ko. aawam bi waxulu parce que sëñ Bamba waxuma aaw waxuma ñaareel. au contraire maa ko woo si bii si koom. ci la may soog a woo nag mais yëguma ay mbiram. Uhuh. maanaam bi maanaam bi muy takk deuxième femme bi nga ko woo. waaw deuxième femme bi wax ko ko. lan nga ko wax. femme bi laa woo si boppam ki muy takk. Uhuh. laa récupéré numéro woo ko. Uhuh. wax ko li ma koy wax bu baax dégg na mu may seetaan. ma ne ko man la chambre nag waxal aara Fass maa woo. mais aara tey jii. bi nga woowee femme bi yow takk gi moo la neexul moo tax nga woo femme bi wala lan la. waaw man su takk jabar man. damay ñaan yàlla ki may indi sama yaay mu doon ku gën mhm. ki ñëpp naw mhm. ñëpp nawloo mhm. mais du ma nekk si milieu rek dajay faa nit indi ko sama kër ba samay supporter staff kenn nangu si kon da ngay jàpp ne Ada Fass jabar ji mu takk milieu la takk du jabaram du jabaram ah dafa siiw kalmasa fital nga ma jox dara amul dara amul teere amul kër amul kër yaayam amul dara ma eh, bëgg a ñëw tey bi nga bëri 15 janvier daama 16 janvier nga takk deux mois après nga takkaat nga ñoom ñaar seen vie privée man ara ay mbir man laa moom moo boole xamul muy fan la naa la xamul ne mhm. mais ak yéen ni ngeen jege ni di ànd tout le temps xamoo fu muy fanaan xamoo fu muy nekk. en tant que mbër. waaw xaw ma fan lay ne barki sëñ Bamba moom fu muy fanaan moo ko xam man làmb laa seq moom bu amee làmb parce que man événement laay tëgg. Mhm. aar day sonn samay bës. Mhm. day sonn samay événement mhm. tey loolu moo tax ma téye ndax événement fii su ma tëggee événement day metti mu ñëw ànd ak man ba mu jeex. kon bu amee combat na ma siy dem ak moom ba mu jeex tàkk. léegi mi nga takkee jabar ji ménage ko moom aada ma ba tey man maa ngi nii xaw ma sax barki sëñ Bamba xaw ma takk bi moo mel. mais jabar ji moo ne ko yow nga ko. jabar ji moo ko woo téléphone moom mu woo ma si saasi. Mhm, waaw mu wax ma li ma wax nee ma manam moo woo. Mhm. nee ma yaa ko a woo ma ne ko waa man la. Mhm. amuñu continuer discussion bi. mais moom lañ ko wax xam na ko bu baax. mais yéen ñaar da ngeen a am problème wala amu leen problème yéen ñaar. non amuñu benn problème de nice. problème bi xam naa moo booy faas la rek mhm. te booy faas yi lépp lu ñu def ñoom ñoo nekk si dëgg ndax booy ñooy sonn si moom mhm. bu aara ba mu amulee dara booy la gis mhm. booy ñooy defar t-shirt cher yi ay set quinze mille vingt mille la ñuy defar ensemble blouson booy ñooy dem ba star génnee ku nekk sa xaalis may gis ay deux cent mille di parier tey man booy laay jox victoire rek lépp lu am booy laay jox seen victoire <laughs> mais ci li ci gën a yéeme mooy nit ñi boîte bi nga xam ne moom la aada di dem di fréquenter ay boîte est-ce que yéen boîte yi muy fréquenter. waaw loolu moom viom la barki sëñ Bamba aada doo dégg am na loo xam ne waxaat sax mais fa ma wax si <laughs> man fekk naa ko boîte yàggul buntu five la ñu daje mbëkkante muy jóge five di <laughs> ne ko fii doo fi dugg ba ñu am fa problème coow gars yi ku ne di wax yooli ba six heures ma ñibbiwaat mhm. mais tey jii xëy na si weeru koor lañ ne du man ne fii di wax si moom sax lu bari mhm. ndax damay yàgg sama koor mhm. mais moom xam na ma xam na defaraat laay fam instant yi yàqum lu bari arab boom bu moom balaa xam tey mu moom bëre avril wala mai du gis trois quarts ndax ndakaaru dañ ko bàyyi yaakaar na mu liggéeyoon yëpp ay moroom a fi nekk ay moroom mbërëm nawle Mm-hmm. dàqul bëri booy ëpp leen mm-hmm. doole. Mm-hmm. ñi fi ne ñëpp mais yàlla mooy maye yàlla da may loo xam ne maye ko benn booy fii. mooy bayre bu jógee booy dañuy jug xale yi. ay moroom ne fi ay coriace. ay mañi keere jéen keere ñoo ko daa ko fuuf. ñi mu la limal nii. ñoo ko ëpp doole ñoo ko daa ko mais yàlla mooy maye. mais xamul loolu. mais dina dem ba mbëkk miir mi nag soo ko xam. mais ñi ngi koy dégg ñoon aada amul staff nag ñi koy àndal koy yàq ak aada ñi muy àndal ay nitu bandi ay milliers la ñoo milliers la ñuy fréquenté ak ñi dañuy suus lu bari nga koy dégg waaw sportif ah, sportif ah. di nga waxuma la mbër di sportif day ànd mbër man mënu ma nekk sportif di ànd ak kii fanaan si boîte loolu sa day yàqu mm-hmm. moom moo am ay moo am choix am ay ñoo xam ne si boîte la ñuy fanaan ñooñ di ko yóbbu fu ne non loolu la mhm. da ngay sa carrière mhm. barki sëñ baam tarul entraînement tarul dara mhm. man moom li may wax nëbbu ma ko man ma man laa bu weesoo respect jox cër euh, nit cër dama lay wax may ragal du ma reculer bi mais Ada Fass dafa yàpp ay supporteram dafa yàpp àdduna barki sëñ Bamba li mu nekkee la tegul si yoon dara gi nga coach bi lépp lu mu waxoon. waaw coach coach bi mhm. interview bi mu defoon. Mhm. lépp lu mu waxoon ci aar moo am man jarul sax may waxaat. Mhm. kooku ku wax ni lu mu wax amul da nga koy tooñ. lépp lu mu wax si aar aar respecté wul kenn. respecté doomu aadama respecté wul kenn. di nax gaay maa ngi fee di dugg ay Île de Saloum fu ne. di fa dund ay viom na jox ñi di cër bu bëggee am carrière bu baax wala mu génn def déclaration ne bàyyi na bëri dem toog Europe hmm. noppal gars yi yëpp mafia bi hmm. ñëpp noppalu ko hmm. ci jabar ji nga xam ne tamit moom la moom la takk ki nekk Espagne tey mu takkaat tegaat ci ñaareel est-ce que jabar jooju tamit amul meru ci wala waa lool viom la loolu moom wax dëgg yàlla viom la bu ko neex mu takk quatre femmes ci mois bii di ñëw viom la quoi mais nit da ngay jox cër say supporter ñu ngi dégg lu ne man mi nga xamante ne mbër yëpp laa fi nekkal képp kuy mbër fii mooy li ma la rek mañu keere buy bëre da ngay foone si moom laa bokk Serigne Ndiaye buy bëre da ngay xam ne moom laa gën a bëgg jéen kere waxi noppi ay du moteur ñëpp ñi ma jege bébé jéen ak ñëpp ibu afia mais aada nga gën a jege mais aada moom tey du lool sax de aada mooy sonn samay maanaam tey day sonn samay bës te mu koy rendre la monnaie mhm. mais du nekkul mooy sama meilleur nag ni ma melax ñee moom laa melax ñee rek. Mhm. xëy na ay moo tegloo. Mhm, moo tax nit ñi gën la ci ràññee. waaw moo tax nit ñi gën ma si ràññee te man damay sonn si nit kuy sonn si man damay sonn si yow. Mhm. mais nag bu moom nag tey jii ni mu jubloo nii nii nii barki sëñ Bamba dina mel ni musul bëre si àddunaam lu muy jublu nii. ñaanal ma ko yàlla de mais mu ngi si erreur bu mag. te xam nga ko yéen a ngi déggante wala déggante moom de. da ngeen gëj keroog bi ma ko woowee di ko wax si affaire jabaram bi boobu laa ko jëlee lan wax ci jabar ji mhm. engagement yi ci jabar lan ngeen lan ngeen échangé exactement mhm. jabar dama ko yow doo maanaam yow doo pour Ada Fass mhm. itu yënga da nga liggéey booy mystiquement ba aar lu mu am parcelle la ko yóbbu ñu ngi nii jox nañ ko ay jakarta mu jokk waa parcelle di fréquente waa parcelle léegi xam nga muy def moom appartement dëkk parcelle bàyyi waa Fass aara jabar ji du jabaram sëy yàllaa moom de mais aara Fass jiru jabaram waaw jeexul sax. jabar ji laa wax man la chamboulé mhm. neel aara Fass woo naa naa da woo aara woo trois mille après. Mhm. ma bàyyi sama jabar de. menacé wu ma. nee na ma manam moo woo yaako ma yaa ko woo léegi di ko kii ma ne ko waa man la man du ma reculer. Mhm. nu ma def su ma sumb dama si dem ba mu jeex taat. boobu takk na ko boobu takk ko trois jours moo si des. Mhm. waaw ñu waxtaan ma wax ko li nga ma wax ko jaar fi yëpp li mu yàqee carrière am ak booy ñu ko bàyyi lépp. Mhm. mu mu fin mu ne waa jégalal madam. mu jégalal madam madam jégal ko rek sàmbale jégal ko yow sama waay nga di wax yooyu. ma ne ko naaj amul problème. voilà mhm. yow. mais nga ne def ko liggéey kon da nga jàpp ne aada li mu nekkee tayu ko. li mu nekkee tayu ko barki sëñ Bamba li mu nekkee tayu ko aada doo ko sax comprendre doo xam aada mu du gis kenn du gis yaayam du gis famille du gis staff du gis kenn lépp parcelle la kay dafay yoof aliya bële mhm. léegi lu ma wax na yàq mhm. fréquentation bu bees ñi mu fréquenté ni muy waa parcelles yi amoo lu dul fi nga jóge fi nga mm-hmm. dëkk mm-hmm. Mm-hmm. moo ko jàppale Fass ñëpp Fass la nga xamee combat am ba tey jii si muy dégg daali mënoo ñëw ba fii di fréquenté waa parcelle jox la ay jakarta nga yëkkati ay carte booyi Fass ko kooku ba kooku jox la ay jakarta nga jël ko jox ko waa parcelle def nga def sa poche du benn respect mu mais tey si ay Siteu la la ñuy def Siteu mi ngi génne ay jakarta jox ay booyam booy di liggéey mais pourquoi pas vingt jakarta nga jox ko booy faas booy di liggéey di verser si yow kees vingt yooyu day juraat yeneen vingt jakarta semence bi wàññeeku jeex mais tey booy yi nga jël te booy li ñu siisu si mariage bi de ñëw toj oto ay zarko ñëw ak booy siisu man booy dama leen condamné booy ñoom ñu yëpp ñoo nekk si dëgg booy yëpp mais mais Ada Fass ak zarko dafa mel dañu amaat beneen relation bu tax wala mooy li la wax rek lan moo ko sonal. Mhm. sa bandi doon. du bandi moom day faawaate. ara na bàyyi yooyu muy def. Mhm. ay Siteu bu Ngor ay mhm. Laurent bu ara ay booyam dañuy am combat fii booy Fass ay plateau. Siteu bu andi. du ñëw seen open press. te ñooñu la gën a jekk na gën a jege. bàyyi booyee dem ay open press ay Siteu bu Ngor. injustice baaxul si àdduna barki sëñ Bamba baaxul tey nag génn def déclaration ju wax mbaru Médina yi ay Ibou Afia bébé Diène dañu war a nekk mille pour cent ñoom mais jubóowuñu jubóowuñu ba léegi hmm? tey na gars yi jug grand yi wax si loolu parce que Ndakaaru benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man de kenn du ma jaxasee kenn ni ma mel si bébé Diène noonu laay mel ni ma mel si Diène Kairé ba tey Ibou Afia ñëpp ku si xewle suba damay dem waaw moom nag bu saaganee ba foowee carrière am mhm. moom la mhm. mais mais si Zarko est que waroon ngeen a toj toj otoom tamit li nga xam ne moom moo di Zarko mu ñëwoon ci mariage Ada Fass booy toj rafetlu nga waaw loolu moom man du ma si wax parce que ma ko mhm. mën naa ne loolu aller retour Zarko moo njëkkee moo toj ara oto suñu kanam seen kanam yéen ñëpp kon booy bu ñu defee loolu tamit door fay la rek waa mais ginnaaw bu mu amee dóor fay warut fa mën a waaw booy xamoo lu ñu naan mag du dàkki day koj booy loolu lañ def dañ toog xaar rek am na yàgg-yàgg dañu am Zarko te xam naa bu ñëwaatoon suba booy toj otom mais am na ci benn booy Zarko boo xam te ni dañ ko ci blessé mais kooku moom na du bàyyi waaw dañ ko si blessé nee du bàyyi waaw moom te moo bàyyi rek na bàyyi ut jàmm rek moo gën quoi ndax am na amul solo waaw na gars yi génn rek waxtaan seen biir ñu jubóo ci problème mu kër su Ada Fass bi ndax ñu bari nee nañ fi ne dafa tëdd feebar est que Ada mi ngi koy jàppale waaw per Koundou mhm. père moom wax dëgg yàlla aar da ko war a gëstu ndax père ñi taxawal Fass Benno si la mhm. day def te yàlla tax amu si juróom amu si cent franc aar mhm. li muy def di joxe xaalis si boîte di maye ñëw gëstu peeram faj ko xam na nag feebar de mais naka gëstu jox faj ko jox ko suukaru koor yóbbul ko ko nit amoo loolu sa entraîneur nag waaw na gëstuwaat paa bu baax. Mhm. bi ko Zarko daanee toog naa buntu këram nga ne coach bi doon entraîné Ada Fass daan na la woo téléphone naa la sa boy bi entraîné wu. waaw Ada entraîné wu si combat Ada looloo ko njëkk daan man <laughs> sportif laa kenn du ma nax. Mhm. Ada dañu doon ànd nañu entraîné. Mhm. mu jéeg saa nekk si mbedd bi perturbé si mbéeku si mbedd yi. def lu ko neex. ñi naan day suus lu ne mhm. barki sëñ Bamba suus boobu ñu waaw man gisuma ko mu teg ko si laaminam mais man aara bi mu ko gisee laa xam ne kii ñëwul mhm. barki sëñ Bamba ara combat bii nii nii nii nii mhm. yàlla rek moo tax mooy wax wax naa ko si dernière réunion am ma ne ko jour ngay njuróol lii daanu Zarko nañu annulé combat bi nii mu may dégg ñëpp toog ma ne combat bi nañ ko annulé di daanul Zarko boobu gisuma si moom doole. Mhm. gisuma si moom physique. parce mhm. que sëñ Bamba mhm. moom xam na bu baax li ma koy wax moom ngi may dégg nag am na bu baax li ma koy wax. moom moom xamante nañ. Gris Bordeaux nga gis démb li nga xam ne moom la wax ne staffu Ada Fass moom moo baaxul ndax bi muy toll foofu gel sax daawu ko seeti nee na si supporters yi ci la bokk ak staff. waa Gris suñu grand la Gris lépp lu mu wax dëgg la Gris Bordeaux ñun ne entraînement am dañ karmaam faas dañ ko daan am di ko topp di xam carrière am kii mosoo ko dégg si dara tey bëri na ba yàlla teral ko jënd ay gan di gàllem di business yi oto yeeg lépp pourquoi pas Arafat moom du am xel boobu gis grand yu ñuy def dem ba benn aay bi soo ko takk jabar am li ngay am anaay booy ñaa ñoom murloo gaa dañu defar seen carrière ba pare am seen kër mais Gris lépp lu mu wax si aara dëgg la ndax aara booyam la li li li li président écrit bi wax ne Ada Fass la juddoo waaye du nante waaw Ada Fass la juddoo waaye du nante wax dëgg yàlla waaw dafa yëg succès de <laughs> barki sëñ Bamba Ada dafa yëg succès ki nga tey Ada moo antaloon ay millions Ada promoteur man su sama sogo wóor na sëñ Bamba ñu koy fay cinq cent mille billaay wallaay ndax bu tee million day yàq du réagir dara amul xalaatu àdduna bu ko jëlee mi ngi xool mu jëndee T-Max teg si otom iPhone 13 xool fu mu génn tibile ñëwaat. ana yaay aada. yaar mi ngi Saint-Louis. ana papaam. ngi fi. est que mi ngi dégg waxtaan ak moom. loolu moom fi la loolu moom xam naa mu mi ngi déggante ak ñoom mais aada laa la mhm. na defalaat carrière su bëggee. dégg daal ci làmb man de ak dëj laa yemale barki sëñ Bàmba na may dund sama dund ni ne sama bopp mm-hmm. booy laay waxal booy booy topp mbër yi wax ma la mbër yi da mbër yëpp mm-hmm. képp kuy jeune mm-hmm. bëgg lu baax bëgg a teral sa yaay bul ànd ak mbër mbër warkat la mbër yëpp mbër moo mën war déet waay mais am na mbër yoo xam te ne duñu war de gaan ay deux mille cinq maa ngi topp mbër ba deux mille vingt trois mm-hmm. sportif mbër ak jour ñoo yam mm-hmm. da ngay ànd ak nit ki ba mu ba mu yor cent franc juróom ngeen di jóg nank nank jóg mu am ay million mel ku la xamul mm-hmm. man na ma yor ay mbër yor ay jour ndax jour la sportif day war képp ku jeune yor karaw bu ñuul demal reyante sa bopp xotti sa yoon dimbali say waajur ndax ñoom bu ñu amee seen million seen këro ñu yóbbu